Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, bienvenue sur ce nouveau entretien de www.senclic.com gis ngeen fi ñu taxaw nii ñu ngi fi ñëw set si benn ndaanaan boo xamante ne nii donc kenn dootu ko présenté da ko donn aar bi ba pare juddu ci yaru ci màgg ci kooku mooy fàllu fii mooy kër Mbaye Dieye Faye ñu ngi set doomu mbay Dieye Faye bu tudd Fallou nga xamante ne ñëpp xam nañ ko ci wàllu aar bi Fallou Faye mesdames messieurs je vous invite à voir ce à l'intérieur on va essayer de voir allons-y Rob si naka la nice waaye sant ni cool ni sinon naka affaire yi jaajëf comme ni leen ko waxee woon gis ngeen ñu ngi ak Fallou mu nekk artiste boo xamante ne nii c'est-à-dire da ko donnu yaru ci màgg ci donc di waajal benn affaire bu extraordinaire boo xamante ne nii ci kanam tuuti ñu ngi ak moom dinañ fas yéene fekk sekk ak moom waxtaan laaj ko ci carrière ci door dooram Fallou maa ngi lay siyaar di la nuyu di la sant asalaamaaleykum di nuyu senclic point comme di nuyu bépp téléspectateur buy seetaan senclic di nuyu kilifa euh, kër gi waaw di nuyu sénégalais yëpp waaw di la nuyu yow sama frère ndaanaan bi maa la wax loolu. Fallou tey dama bëgg waxtaan ak yow waxtaan boo xawante ne nii cest à lu kenn musta waxtaan ak yow wala nit seetaan ko ci réseaux sociaux wala ci site yi wala ci télévision yi donc dañuy gis ne à chaque fois Fallou di ko dégg donc xam nañu doomu Mbaye Dièye la te à chaque fois ñu ngi donc ci kaw seen bi mu ànd ak mbay Dieye fay déjà sax am nga benn single boo xam ne def nga ko ak mbay mu naan la wii fils nga naan ko wii père donc tout le monde xam nañ ni tey doomu Mbaye Dieye Faye nga mais dañu gis ne fàllu donc bi nga commencé gis ci aar bi yàggul tey kenn dootu la sénégal Sénégalais xam nañ la tappa pas besoin ñu naan la kii mooy Fallou yaa ngi dégg waaye bi ñu la yàggee gis ci aar bi donc yàggul il que ci single bi lañ la nit ñi commencé xam donc temps bi xaar bi lan la ak fo nekkoon dinaa ci sawar a waxtaan waaw nag tey fàllu benn booy la rek benn booy boo xam ne jàng na ba troisième secondaire jékki-jékki ne rek yëfu géwél te sax su ma doon tey xëy na duma arrêté études yi arrêté naa études yi laa dugg ci musique waaw laa nekk sama orchestre pap di fa tëgg waaw fekk fa sama yeneen pap bàyyi dem ba Adama Diagne ba tey muy Suisse foofu waaw ñu tette ma wan ma yoon ba ma bokk ci orchestre bi waaw ndax xam nga tey ji sabar ak musique xëy na lu nekk si si suñu jaar-jaar la mënuñu si dara loolu yàllaa ko def ba tey passion ñu am passion dugg ci waaw si si si deret bi la jàmm bi moom munu si dara waaw 2007 laa commencé nekk ci paa bi di tëggat yooyu ba tey yàlla def lii 2007 fàllu ci la commencé xam naa deret bi affaire yëngu tërëj tëj gi rek mu ne xaaral ma dugg ci mais naka la demee woon ak père bi bi nga ne da ngay woy dagg études yi dugg ci artiste bi te en général sax dañuy dégg donc per mbay Dièye fay naan noo man sama doom bugguma muy woy parce que xam naa li nekk ci aar donc naka nga demee ak moom xëccoo bi daf la aaye wala aayewu la wala dal encouragé ak yooyu wala da nga làqatu rek dugg ci. tey ci kéwél tu tëb doom ci li nit ci di wax. tey jii ñëw naa ci orchestre am bàyyi naa jàng au début maa ngi doon football dem naa ba après benn âge wi nga xam ne football bi da nga koy jël teg ko fële. après yàlla passion dugal ma ci musique bi mooy dem si orchestre di fa tëgg di ba yàlla tey def ba mu xam ne moom man maa visé loolu ñëw naa prip nag waxuma woon ci musique bi def ma dara dama daan tëgg dama daan jouer sabar kese ci orchestre am ba yàlla def ma ànd ceet moom tukki 2007 boobu dem naa ci at moom Paris Euh, dem Italie et tout ñu def tournée après boobu nag ci laa commencé xam ne waaw caaxaan jeex na maa ngi ci yoonu musique waaw boobu moom bañul bañul parce que deful lu dul encouragé ma waaw nag premier featuring premier son bi ma def moom laa ko defal après si laa defat bàyyi dem ba beneen featuring lëmbal dañ sol après nag sama single tey la soog a ñëw waaw mais nag yooyu yëpp bàyyi ma daf ma tout le temps benn baat bi la ma doon wax jàngal ba mu mokk ma nekk ci yoon bu baax ba nga xam ne soo ñëwee li ci des du métti noonu waaw tout temps nag loolu moom daf ma ko daan wax. yee donc ci tëgg bi nga doore tëgg bi donc lan moo la poussé ne xaaral ma woy cest à motif bi laa bëgg a xam li tax nga ne noo bàyyil ma woy parce que dama war a woy wala wala wala wala wala dama doomu géwél laa wala dama doomi ndaanaan wala dama am possibilité woy saa à dire quoi le motif quoi. motif bi lenn kese la parce que dañ daan nekk ci orchestre bi. Euh, yàlla def tournée boobu bay dem ba chaque jour soirée yi moo ko daan jeexal waaw moo daan def premier partie taaw blocage boobu album bi def na succès bu garaaw paa bi di dem fu ne yàlla def boobu Baye mi ngi liggéey Titi waa bi ñu demee tournée ñu dem Bordeaux boobu laa njëkk a tëj soirée. waaw noonu rek benn morceau boo xam ne tout le temps moo doon nekk fee morso paa bi si la doon ambiance bàyyi dem baa ko daan def moo koy aaw di ci foo ba assuré ba nit ci naan ma lii dafa naaj si continuer ko noonu yàllaa def loolu mooy foo di noonu di leen déglu waaw di déglu ndaanaan Sénégal yëpp ba noonu ba tey yàlla def li mu def naturellement waaw affaire yi noonu la def. wax ci ci ambition yi donc est-ce que tey xam nga tout les moyens je peux dire. donc orchestre baa ngi fii ndaanaan yaa ngi fii xam nga ku ci mel ni Baye Demba yàgg na ci affaire yi depuis temps ndongolo et tout ça et tout ça donc ñu faral di leen gis sur scène di faral la gis ak koo xamante ne tey musique Sénégal munoo tudd te tuddloo ko mu Youssou Ndour donc ñu ngi lay gis aussi tamit ak koo xamante ne tey mënoo tudd ci musique Sénégal te booloo ko ci muy Mbaye Dieye donc ngay doomam donc lan mooy sa sa sa sa ambition ci musique bi lan mooy sa projet est-ce que tey demain mën nañ la xaar. fàllu benn orchestre am di woy comme Youssou Ndour di woy comme keneen ak keneen ak keneen puisque doomu ndaanaan. waaw loolu tamit dinaa si sawar a tontu parce que li nga wax la rek waaw parce que ñun ñun dañu ñëw fekk lépp yomb waaw macha allah ñun ñëw neen fekk lépp euh, yomb tege nag sooy xool suñu pàpp yi ñoo gën a souffrir si musique ñoom jaar nañ fu ne te amuñu dara ñoom dañoo burlenge ñoom seen jamono boobu seen clic amul. benn site amul benn télémon amoon RTS mais ñun ñëw neen fekk site yi bëri dañ lay xam yàlla mooy def loolu du ñun lépp rek yàlla la mu yomb ñoom seen si ñoom la gënoon métti si ñoom la ëppoon jafe-jafe suñuy enregistré dañuy ñëw bi ñuy ñëw dañu fekk studio dañuy tegandoo par benn ba lépp moonte yow nga ñëw wax témoin kese ngay jël gars topp si après ku nekk joué après yow nga ñëw wax xam nga loolu jafewul jafe yooyu waaw mais tey loolu euh, sama orchestre pap lu may def gis naa ne incha allah mat ñoom ñoo koy defandoo waaw parce que loolu tamit avantage ya tey jii ñoo joué sama single avantage ya su may joué live ñu tëgg ko nag tey jii Sénégal bëri na ñoo xam ne euh, xëy na dinañ def ay album dañuy jël yeneen artistes mais loolu da lay sonal parce que loolu soo naree live après yi nga at lu ñu nekk ndaanaan il faut nga répéter et tout mais man gis naa ne. waaw gis naa ne yoon boobu du metti nag am naa ay samay kilifa ndaanaa ñoo xam ne ñoom laa joué ndoor muy Birame Dieng macha moom moo woy ci album bi waaw ak ñeneen sama musicien papi yi sama frère papi waaw maa ngi seen ginnaaw. tey mën nañu xaar album bi mën nañu xaar album bi album mu album mu fàllu. nañ sax benn ne album nag teel na nag dañuy jàng kese ñu ngi ci yoon tey jii ñun mënuñu fi wax loo xam ne suñu papi ñooñu waxuñu ko. waaw ak ñi ñu jiitu ci aar bi xam nga Fallou mënu fi njëkkee wax mënu ko mujjee waaw mais incha allah bëgg naa chaque trois mois ma génnee morceau loolu dina mel ni album incha allah ba album di ñëw nag. chaque trois mois morceau loolu ah loolu job la laaj de liggéey bu bari bari bari bari bari répétition bu bari xalaat bu bari. ok donc Fallou aussi beneen affaire album bi léegi donc xalaatagoo ci mais yaa ngi ciy togg yaa ngi koy waajal ndànk-ndànk. mu am benn affaire boo xamante ni da ko fi dóoroon mu def bëm xam nga lëmbalu deen sol bi gis nga ni mu ni ko gars yi bëggee foo tourné lëmbalu deen sol nga ànd ceeg dem Demba et tout ça loolu nan la la def succès boobu quoi. waa tey jii lëmbalu deen sol waaw car macha allah am na succès man dama dem ba après <laughs> affaire yi daf may jàppale sax damay romb xale bu ndaw mu ne ma eh bu yàkkaa ngi ma ne xoolal booy fàllu tur bu sell bi ma tudd ñu changé sama tur bi di ko def di ko def bu yàkka mais nag loolu yëpp sant yàlla la tey jii tamit. mënuñu si am succès loolu ba gis ba gis si suñu bopp nag tey jii succès da nga koy démystifier àdduna fii nit yi kenn moomu leen tey jii soo ñëwee rek di am looy jaay kenn du la faale ñëpp fa lañ lay teg fële lañ lay teg parce que succès morceau ku nekk fi am succès yàlla mooy def loolu Sénégal tey jii bas cu ngi nii kon yees maamam grand sëriñ la woon du géwél du dara benn son rek la def am succès bu mu tàq yàlla mooy def loolu kon loolu yàlla moo koy dogal mi ngi noonu moo tax succès tout le temps da nga koy démystifier waaw yow daal gënal suufe succès bi waaw loolu daal man laay wax quoi. taw bis bi xam nga Fallou nekk ci saw bis bi dafa xaw a waar gaa yaa ngi wax ku nekk chaque jour ñu ngi bindal mais booba léegi Sall yow mosuñ la bindal dara te ndaanaan nga xam nga doomu ndaanaan nga site internet yi mosuñ déggal nga bind lu ñaaw lala da ngay moytu wala da ngay làqatu kii bi nu mu demee. loolu tamit xëy na dinaa ci sawar a wax. waaw nag sax euh, maa ngi jégaloo passage pa bi wax na ko sax TFM mën naa sax bañ a tudd fii beneen télé wala loolu mais man gëm naa ne su dul woon xëy na li sama papa nekk musicien artiste mën naa sax bañ a dem ay boîte de nuit yooyu waaw nag tout le temps ni ma mel daal laay wax waaw euh, tout le temps maa ngi ñi may àndal ba may xale ba léegi ñoom laay àndal samay frère sama famille ñoom laa am parce que tey jii ñun dañuy weex dunk tey jii su ma romboon fii at kenn koo xam mën naa sax ànd ak sama rak di doxantu ñu foto ma ne ah Fallou gelam la àndal loolu yàllaa ko def mënuñu si dara mais daal lu ñu mun def pour moytu rek car macha allah ñu ngi koy def waa nag àdduna dafa gudd tànk. mais Fallou aussi xale yi tamit yow mu ñëw moytu de gis nga xale yi cest dafa mel ni génn ak ndaanaan xam nga challenge lañ ko def ak yu demee noonu booy dañu nekk ci Facebook bi di rëbb te Fallou yaa ngi ci Facebook bi yaa ngi ci Twitter yaa ngi ci réseaux yi. xam nga donc arnaque bi xale yi jigéen ñi def léegi donc xam nga cest à succès la ne maa ngi génn ak Fallou succès la wala non doomu Mbaye Faye bi man lay jël Fallou est am na soxna xam na am naa soxna depuis 2014 waaw am naa 4 ans de mariage am naa ci tout tànk lay soxna Faye waaw am 3 ans donc <laughs> loolu moom mun neen am nag suñuy xarit waaw nag tey ji yàlla mooy def yow nga am nit xamanteet moom mu am cofeel ci yow. waaw nga nekk càmminam moom mu nekk sa jigéen waaw mais daal am na tamit leneen ni moom nekkul suñu bopp quoi ñu ngi koy moytu tamit bu baax a baax waaw nag àdduna dafa garaaw quoi waaw ba pare tamit ñun dañuy dëkkee foo xam ne dafa ñaaw ay soo newee géwél wala artiste rek ay dafa bëgg jigéen loolu tamit ñu ngi def tout daal pour moytu ko waaw ñu ngi def tout pour moytu ko. wax ci càppaacooli gi maanaam ci li nga xam ne mooy mooy mooy actualité mën naa wax nii donc singal bi génn na. donc euh, damay bàyyi nga tudd ko en exclusivité yaakaar naa ne ñu ñoo am exclusivité bi toog fii ak fàllu xam nga détail ci single bu bees bi yaa ngi dégg Bara Mbaye Coupé Décalé mu nekk lu bees Kouyaté amoon na fi temps xam nga ba léegi tey loolu foyut mais pourtant mënoon nga continuer Kouyaté boobu mu dem parce que succès baa ngi fi nga tegaat ci beneen Bara Mbaye Coupé Décalé lay demee Coupé Décalé Bara Mbaye bi donc dama bëgg nga wax ñu tuuti quoi bref. au passage Cheikh Bouyaka xam Bouyaka morceau Baye Demba la. sama morso papa mu invité ma si mais ñu bëri dañu foog ne waaw maa ko def mais sama morso papa la mu invité ma ci ma foot ci noonu rek waaw mais single bi génn na mi ngi tudd Baara Mbaye coupé décalé mu nekk musique boo xam ne dañu jël sabar yi marimba yi basse joué ci rythme ñag waaw cakit ca cakit cakit mais rythme Baara lañ ko def sama bi balaa ngay xam ne naaj sa sax nga déglu ko ci casque Noti urat cekit cekit urat urat cekit cekit cekit urat cekit cekit xam nga loolu rythme coupé décalé mais rythme baara mbay lañ ko tegee waaw mu am bàq baara mbay noonu la demee mu nekk lu nice macha allah parce que ñun euh, Sénégal li gars yi di wax ñun waroon nañ mën a dépasser fii suñu sama mbokk rappeurs yi laay wax parce que suñu jëloon xalam bi nekk sama ginnaaw ak sabar bi dugal ko seen musique kenn du ñu raw ci musique Sénégal nag ñekk succès bi ñoom seen rythme la ñu jël waaw seen culture def ko seen morceau looloo tax da ngay dem ba Amérique macha allah dugg ci boîte de nuit ñuy teg seen ay musique kon loolu rek mooy ñoom liggéey nañ ko waaw ñun daal bu ñuy fàtte lool bu baax a baax. Sénégal gars yi exporté wuñ ko quoi dañ ko war a exporté mu génn donc beneen aussi tamit Fallou maanaam suñu la dégloo sa style musical dafay xaw a mel ni benn genre musique. rap tuuti ngay xaw a te effectivement rap la sax parce que benn jour maa ngi lay seetaan yaakaar naa King Fat Plaza woon ak sa benn sow Youssou ne ah rappeurs yi am nañ problème rap nañ <laughs> di ko seetaan sa rythme boobu noonu donc lu tax nga choisir rythme boobu quoi rythme boobu. nga Sénégal ñu bëri rappeurs sax lañ ma foogoon mooy soo parce que pas bi puissance mooy morceau bi nga doon wax sànq bi may naan ci mon nom Fallou Faye dama ci rap. ñëpp naan rappeur te du loolu waaw euh, dama dama ciy wax kon rappeur yi mais balaa ñu may indi problème nag xam nga ñoom dañu bëri problème suñ déggee sabar ci dara rek ne waa kii du rappeur dafa yem ci moo tax ma ne leen damay musique moo tax morceau bi morceau Baara Mbaye coupé décalé bi sax ma gën ci wax kon mbalax maañi xaw a teg rab bi fële sax mais tamit loolu noonu may def. gis naa ne kilifa euh, ndaanaan nee na ma si bu nekk bitim réew mu ne ma yow xamoo sax li ngay def rab bi ngay genre bi ngay def di sabar yi di ci dawat yooyu mu ne ma loolu kese moo mun a dox extérieur waaw milaay moo tax ma ne gars yi loolu suñ ci liggéey bu baax mun nañu yóbbu fu kawe kawe kawe waaw fu gën a kawe suñ jot ku euh, Fallou beneen question ñu tëj mooy euh, gis nañ génération bii yow showbiz bi maanaam génération artiste sa yow ak sa waali ak yeneen ak yeneen te yow yaa ngi nekk ak ci parti boo xamante ne xëy na donc dafa xaw a sensible ci ci ci ci laaj la ko lan relation nga am ak Waly Balago Seck. waaw tey jii loolu dama ci war a wax parce que Waly famille ñoon Waly Seck ñoo ñoom ñoo jàkkaarloo kër 5-5 at format leen kooku benn famille la ñoo bokk maam. ko kañ loolu relation mboq moo ci njëkk am leneen du ci am nit yi nag mun neen xalaat lu ne mais loolu waaw loolu kecce moo ci am waaw balaa dara ay mboq lañ te mboq moom lu rafet su fa xajul lu ñaaw du fa xaj waaw loolu loolu kese laa ciy wax yee beneen bi loo koy wax ci consisawam bi xam nga ca Genève nga xam ne gis nañu ko ci télévision yi ci réseaux sociaux yi yaa ngi dégg feesul comme ni ñu ko gisee par rapport ak bi muy nekk dem euh, Zénith et tout ça donc manque de publicité la wala manque de communication la yow noo nan ko gisee jàpp noo ko jàngatee ko waaw beneen bi tamit au passage dama koy félicité nag waaw Wally xale la demagul fenn demagul fenn xale la waaw fii Sénégal tey ci ñëppay ba léegi sax man loolu gisaguma image yeeg yooyu ñuy wax feesul ak feesul mais tey jii Sénégal mun nga tëgg fu ne mun nga tëgg fii mu fees dell nga bañ a tëgg fii mu fees mais moom loolu su ma koy wax benn baat kese laa koy wax xale la te dese na ko yoon bu gudd na continuer liggéey bi kese yàlla baax na li ci kanam réew lu bët loolu kese laa koy wax bu mu découragé na continuer liggéey bi te xam ne xale la demagul fenn kese loolu kese laa koy wax. donc bi. Euh, Bara Mbaye coupé décalé singal bi génn donc vidéo bi mën nañ ko xaar d'ici quand. waaw non bi incha allah d'ici deux semaines une semaine dina génn au plus tard dina génn dina nekk vidéo bu nice bu nice euh, bu naturel incha allah rabi loolu daal lañ bëgg. waaw waaw non incha allah day am loolu yëpp nag vidéo bi kuy feccikat Sénégal rek incha allah di nga bokk dina nekk vidéo couleur quoi vidéo bu nice macha allah waaw. ok merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal Fallou ci opportunité bi nga xamante ne may nga ñu ko donc chers amis internautes ñu ngi leen di remercier di leen dig daje beneen yoon ak beneen daanaan fii ci 3W senclic point com